asalaamaaleykum nag ndeysaan maa ñëwaat waaye corona bii macha allah yàlla na lu ko yàlla daqal yàlla sàmm ñu aar ñu balaa nag bu wàccee sunum réew macha allah ah ñun ñëpp danoo war a fagaru bala ñoo lekk na ni raxas loxo yi bu nuyoo joxe loxo ba pare gaawal laal gel bi am na ci solo lool tey raxasoo eau de di ko jëfandikoo macha allah wala ngay raxasoo saabu ba sa loxo set. sa nekk ak sa yi ngay jëfandikoo yëpp na propre ndax am na ci solo ndax corona bi jéggi na dayo nan ñaan mu jugee fi ndax Serigne Mountakha sunu xalifa bu baax ba macha defanoon na ay jàng kaamin ban jàng kaamin macha allah te gëm naa ni dana fi jugee bu soobee sunu borom bu neexee yàlla gëm naa ko kon nañuy jéem a teel tëdd nag respecté couvre fa bi parce que mooy tax feebar bi arrêté wu. macha allah nan koy respecté di tëdd heure di jug heure comme nit ñu ko waxee incha allah dina jeex ci jàmm na ko ñëpp xamee noonu moo gën ngay dox di dajeeg policiers yi ñu lay may ak liif te baaxut waaw di di la jox ci liif yi mën naa ñàkk waaw kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh